Euh, niñ leen ko doon waxee sànq suñu euh, gan député euh, Marième Soda Ndiaye la honorable ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. moom maa ngi leen di nuyu équipe info matin di nuyu Chérif Nata. Mm. Marcel Cheikh jaw Diaw Grand Abdoulaye et Malick Thiamdou. Mm, am mbégte di ko dalal moom Marième Soda Ndiaye aywa Chérif dinañ waxtaanee ci ponk yu bëri bëri muy législative yi ñu dëgmal waaye tamit xew-xewu jamono comme ni ñu doon waxtaan sànq muy ci wàllu jàng bi ak paj mi. Mhm, ñu xew-xew jamono honorable boo liiree journaux yi fan yi violence bi nga nemmeeku ci espace bi gone gi faat à 17 ans nga rey gone gi 8 ans la xew fële également ca Karang euh, ban analyse nga ci def. waaw euh, dafa nekk euh, ay mbir yu nga xamante ne yu yéeme la yoo xam ne peut-être. fii casquette wu monitrice de collectivité éducative bi mooy wax parce que am naa chance balaa may dem assemblée di encadrer ci ay colonie de vacances camp de vacances gis nga cadre yooyu dafa am solo si tàggat xale cadre yooyu dafa am solo si naka la ñuy tabaxee ndaw bi ñu bëgg ëllëg te dañu gis ne léegi xëy na cadre yu ñuy salfaañe la cadre yu nga xamante ne amatul parce que waajur yi léegi ñu xëy na jotu yar yar bi war cadre yooyu tamit bu amulee école bi tamit li mu war a def defu ko société bi li mu war a def defu ko genre scène de violence yi rek la ñuy gis. Hmm. mais damay wax ne foo gisee lu baax am na lu bon. samedi ba le passé man ak sama colon yi nga xamante ne dañ leen doon encadré dañu nekkoon fële ci Blaise Senghor di def ndogu pour xale yi nga xam ne bi ba leen doon encadré ñi 9 ans lañ am ñenn ñi léegi ñi ngi def troisième année licence donc. ñooñu tey valeurs yi ñu leen doon jox muy patriotisme valeurs yi ñu leen doon jox muy solidarité valeurs yi nga xam ne ñu ngi leen ko doon jox muy entraide empathie et cetera ñoom ñi ngi essayer di ko dupliquer au service de la communauté. Mhm. donc je pense que ni fi ñuy wanee aussi scène de violence yi nga xam ne ndaw yi dañuy jàpp ne lii rek moo normal war nañ tamit di fa wane. les bonnes pratique les bon modèles. lu tax loolu tumburank fi mooy li nga wax noonu cadre yi ngeen doon tàggatee gone yi ngir def ci ñoom loo xamante ni bun maa ngi doon te di rayanteeg yee fitna. waaw waaw parce que peut-être xëy na nit ñi dañuy daw vers liñ naan am-am la course vers l'argent la course vers le paraître li investir ñu comme ni mu waree sur le capital humain. te investissement sur le capital humain nag si kër ga lay tàmbalee maa ngi dégg ay mag yu baax di ko wax ñu ne ndaw bi walla sa doom fi fi muy juddoo foofu si conception ba nga ko war a jox yenn valeurs yi fi ngay fi ngay koy ëmbee ba fi nga koy imbee ba nu muy màggee parce que cycle la waroo ko ameel bàkkaar walla war a waroo ko ameel coono mais itam war nga koy yar yar bi nga xamante ne ëllëg si biir fépp fu mu mun a dem société bi man kanam mhm, mais capital humain boobu la koy tabax école bokk na ci mais li xew fële ca Karang vous avez regardé la vidéo non. bon j'ai mhm. gis naa ay ébauche de la vidéo ñi koy jox ay coûts et cetera mais. Mhm. c'est regrettable. voilà mooy mooy image yi ñuy gis nii xale bi nga xam ne dafa songu beneen moroomu élève gis nga di ko dóor ci bopp ak ci loos. voilà te nga xam ne mënoon na koo gaañ euh, mi ngi ni honorable euh, image yaa ngi ni fële la xewee ca Karang oui c'est c'est regrettable ah parce que man yàlla dama damay ñaan yàlla toujours may am bëtu gar mi noppu gar mi mhm. ak gémmiñu gar mi moo tax yenn image yi c'est très sensible peut-être ñun ñu koy seet heureusement ndax ñu ngeen flouté ko mais peut-être si si yeneen cadre da ngay gis image yi comme nu mu waree et loolu c'est c'est regrettable mhm. loolu loolu moom mooy remettre en question ba léegi violence bi euh, ci milieu scolaire euh, Alaaji Malick mi ngi ko doon wax sànq nee na daanaka école bi sax Sénégal la en miniature loo xam ne ci société bi yëpp lañ ko nemmeekoo à part solution bi nga wax sànq muy ci kër yi Euh, lan moo war a nekk tamit taxawaayu ñuy séq xale yi ndax bu ñu nee séq xale yi du ci kër gi kese mi ngi ci école bi mi ngi ci xale yi fi ñuy dem ak feneen ak feneen ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite nga xam ne xale yi ci ñoom la ñu war a xool tamit exemple comme yaw député ak keneen kuy ministre keneen kuy euh, def beneen liggéey bu mu mën ci doon waaw xam nga ñi jiitu moom nee nañ tegale bi su jubee mhm. bi jiitu moo jub tant que tegale bi bi bi nga xamante ne jiitu bi jiitu jubul askan bi dañuy def lu leen neex mhm. ku nekk si ñun nu dugg ruuxu mën a kanam rek mu ne man ministre la da ngay gis fii ministre député yenn saa yi feu bi day rouge dañ koy jéggi kooku munoo yar kenn enseignant bi man de monitrice de collectivité éducative la sañu ma taxaw assemblée di fa xeex di fa xuloo parce que il y a dix ans je disais aux enfants mm. xaste baaxul xuloo baaxul xeex baaxul saaga baaxul su boobu su ma demee taxaw ci tribune assemblée ba di fa saaga di fa xas jouré fay et xale yooyu dinañ woon wax tata Mariam Soda Ndiaye kat li mu doon wax gëmu ko. Mhm. te nit ki nag boo tolloo ci jiite yow yaa war a wane yoon bi est-ce que tey enseignant yi nga xamante ne ñoo nekk di yar xale yi am nañ valeur yooyu est-ce que tey ñi nga xam ne ñoom lañ dénk pour ñu jiite am nañ valeur yooyu démb si seen analyse yi am na Aïssatou Diop Fall mi ngi koy wax mu ne enregistrement fan la commencé. Mhm. si ay njiit mm. et cetera et cetera mm. donc je pense que ni ñun fu mu toll nii ndëpp national boobu ñuy wax ñun ñëpp la war ñun la war ñi nga xam ne ñi ngi ci famille bi mm-hmm. war na ñi nekk si fi ñuy naseek fi ñuy nocce war na médecin bi war na journaliste bi war na bépp askan parce que li may koy waxee démocratie du indiscipline mm-hmm. balaa ngay xeex nag sa àq ak say yelleef da ngay def sa wareef ba pare pour que nga mun a ñëw si société bi laaj li nga xam ne yow yaa ko moom mm-hmm. Sénégal bu fekkee ne da nga tënku si loolu xëy na boo waxee duñ la dégg parce que dañ naan en général ñi nga xam ne ay njombe la ñuy wax si dëkk bi xëy na ñooy am vue yu rëy yi mais ñi nga xam ne peut-être dañu tënku si wax dëgg dañu tënku si wax li ñu gëm dañu tënku ci wax si yar ak teggin xëy na duñ leen déglu mais je pense que ni ñu déglu la ak ñu bañ la déglu yow defal sa warugar rek parce que liñ naan le temps est le meilleur juge et le temps va juger. dafa dem ba ci assemblée bi nga xam ne mooy pencu ndaw réew mi ñu gis fa ay pratiques yu nga xam ne bu xale yi dee toog di ko seetaan surtout ci législature bi dafay xaw a doy waar gis nañ fa ay scènes de violence violence physique violence verbale gis nañu tamit député ak taxawaay bi mu war a am muy wuru ca ko def lu ni mel député faussaire député violeur député euh, nu mu tuddati euh, trafiquant de faux billets lu ne gis nañ ko ci euh, ci législature bi la est-ce que tey ci ndaw réew mi ci boppam ay présumé ay présumé donc est-ce que loolu tamit waruñu ko xoolaat bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy représenté ngeen am taxawaay bu nga xam ne ay exemple ngeen di doon ci jeunesse. waaw loolu moom man dama koy yàgg di wax. bal bi si peuple bi lay tàmbalee si peuple bi lay dellu parce que Sénégal liñ koy waxee mën nañ fal mais mënuñu folli mhm. tey askan bi moo am fulla ak fayda tànn ñi te dem assemblée national man mii xëyuma xëy dem assemblée national mhm. askan bi moo ma fa yóbbu askan bi bu amee fulla tànn tànnin bi gën maanaam tey ah man kat député bii ma fal est-ce que dina ma représenter est-ce que dina dina voter les lois est-ce que dina def le suivi et l'évaluation des politiques publiques de manière rigoureuse je pense que ni noonu la ñu war a tànnee mais pas que diw mooy def buzz wala diw moo xew loolu nag si askan bi lay tàmbalee si askan bi lay delloo léegi nag le travail qu'il faut faire pour que éveil citoyen bi mun a am éveil citoyen bi mun a am réveil citoyen bi mun a am loolu presse bi am na ci rôle société civile am na ci rôle mais bu ñu bëggee am des députés de qualité wala bu ñu bëggee am assemblée nationale de qualité il faudrait qu'on élise des députés de qualité tant que askan bi jëlul boppam am fullaak ak faydaam xool xoolaat ñan lay yóbbu assemblée nationale mhm. dañuy continuer di dundur ses regrets rek la maintenant ku nekk nag ak li la yóbbu assemblée nationale man tey quand les gens disent député amul benn njëriñ je carrément man de li ma parce que les responsabilités individuelles font les responsabilités collectives man Mariam Soda Ndiaye ñeme naa tëdd sama lal ma nelaw nelaw ba yàndoo parce que sama liggéey maa ngi koy def correctement maa ngi koy def te journaliste teewul maa ngi koy def parce que dama koy def ak éthique dama koy def ak déontologie dama koy def ak li ma règlement intérieur may mi ma ne le député est un représentant qualifié de la nation loolu laay def et puis maintenant les faits sont là na peut-être bu ñu tolloo ci évaluer le travail des député bu verrez que ne am na ay député yu def seen liggéey. mais itam am na bi jeex na de honorable fan toll. Euh, yaa ngi wax euh, euh, di dañu nekk ci période boo xam ne dañoo bëgg a yokk ndaw ñu tuddati liñ def day bokk ci assemblée nationale ci askan bi ñu bari soo. deux mois dañuy jàpp ni mais est-ce que ça en vaut la parce que assemblée nationale boo xam ne ne xuloo ko am est loolu. waaw dama dama d'accord si loolu parce que pourquoi ma d'accord si loolu mooy tey si sur la base d'un consensus la demee yaa ngi wax ne dañu yokk yokkatuñu parce que. Mhm. groupe benn Bokk Yaakaar def na amendement pour ñu wàññi liste nationale looloo waral ñun. si sunuy prérogative ñu saisir le conseil constitutionnel dañ ko saisir parce que dañu jàpp ne c'est un recul démocratique dañ ko saisir parce que dañu jàpp ne il y du consensus dañ ko saisir parce que dañuy salfaañe suñuy cadre autorité publique dañuy salfaañe itam le code consensuel de 92 bi nga xam ne moo ne acteurs yi nañu waxtaan ba juboo bu ñu juboowee ñu indi ko assemblée ak acte additionnel de la CEDEAO tey lan lañ def di ñu ñëw ñun personnellement man demoon naa commission bi ma demee commission technique dama jël position ne au regard de exposé motif bi nga xam ne jox nañ ñu ko parce que ministre de la de l'intérieur dafa ñëw mu ne pour que ñu mun a yokk député yi dañu xool ñeenti hypothèse benn bi mooy xool ndax dañuy wàññi le nombre de députés yi nga xam ne mi ngi nekk ci département yi munul nekk ñaar mu neeti nañu wàññi député diaspora yi ñu ñooñu ne ay acquis kenn du ko wàññi ñetteel bi ñu ne nañu xool liste nationale loolu mënul nekk quatrième euh, euh, euh, mesure bi ñu ne nañu xool tey comme yooyu yëpp amul lan moo mun a am li mun a am mooy ñu yokk le nombre de députés parce que tey nañ ko wax te dund Kër Massar département la mm. loolu dafay indiwaat leneen ci aménagement du territoire njiit warul xëy xëy rek. si coobareewam ne def naa fi département. parce que l'aménagement du territoire c'est d'abord une action planifiée c'est une action concertée doo xëy xëy rek parce que dafay am incidence juridique dafay am incidence économique dafay am incidence euh, électorale dafay am ay incidence sociale benn may ma rek ma terminer si loolu leneen li nga xam ne ñun jàpp nañ ko acte additionnel de la CEDEAO dafa ne mun à six mois munuñu laal code électoral tant que amuñu large consensus tey acteurs yi waxtaan nañ ba ñu ne d'accord nañ ñu yokk lenn lañ d'accordul mooy ñu ne bu mu am incidence financière man nag dama jàpp ni la démocratie n'a pas de prix mais elle a mais foofu responsable foofu dinañ la fa dagg tuuti parce que kon ça montre que ni ñu ngi joxañ nguur gi mais opposition bi aussi am na ci responsable parce que bi ngeen demee ci dialogue national bi àndoon ngeen ci ñu yokk sept députés yi pourquoi ñu ñëw ba nga xamante ne ci plénière bi la ay populistes way naan sur le plan financier day am impact moo tax d'accord ñu yokk député yi. waaw xam nga man dama lay wax ci commission ba ma dem commission bi ba ñu voté benn nit moo ne contre na benn nit la loi est passée à la majorité benn nit. tey waaw bu ñuy jël logique pour logique rek député bi ñu ne moo contre wala député moom lu ñëw day voté contre la moo tax loi de finance kon duñ ne nañ ko delloo. mais bi ñëwee plénière ñi ñi ne contre la dafa bari. ñan la. ah j' on a vu des députés de l' yu taxaw. waaw ñan la non non non mënuñu doon. Ah, bari quoi dañu bëri dañu bëri dañu bëri mën na dañu bëri li mën ma juróom parce que sept députés yi fi yokku day am impact mën ma nañ limal ma si juróom. non bëri nañ mënuma la. juróom bon man plénière bi ma seetaan il y a 15 jours bi fa ministre de l' intérieur demee am na ay députés yu taxaw carrément. bëri waaw léegi dañoo bëri. ah. dañoo bëri limal ma. man de man personnellement jël naa parole commission. ah dégg nga xam nga xam nga leen di ëllëmal. suñuy waxtaan dañuy wax rek am. mais c'est des députés man man bu amee ay députés de l'opposition taxaw fii carrément ne ñoom ànduñ ci ñu yokk sept députés. xam nga man ko ci proportionnel bi xam nga man dem naa commission. je dis ministre nit ki booy def ay réformes danga kay koy ñeme am na ay députés yu bokk majorité. ñu ne waruñu woon sax jël ci exposé de motif bi dinaan dafay am incidence financière man demaat naa taxaw commission plénière ma ne il est tout à fait normal ñu yokk nombre de député yi parce que c'est la loi la bi moo ne euh, gox bi nga xam ne walla département bu nga xam ne dafa dépassé cent soixante-dix mille habitants mm-hmm. am nga droit ñaar tey député bu nekk war nga représenter lu mu dee dee dee su ñu jëlee configuration bi on est plus de euh, on est 65 députés aujourd'hui on est 17 millions d'habitants ku nekk war nga représenter 100 000 habitants bu ñu jëlee rek la moyen ku nekk war nga représenter 100 000 habitants tey Kër Massar département la war du département l'erreur c'est que président moo jug dem ne fii da koy def département parce que ya eu des inondations amul waxtaan amul dara léegi nag dafay am incidence léegi nag il faudrait que ñu corriger Thiès bi nga xamante ne population bi mi ngi yokku Mbour bi nga xam ne mu ngi te yooyu yëpp réforme yooyu yëpp tamit mm. c'était des réforme politique parce que jàpp nga ne neexoowoo kii wala kii mën na la sooxee wala fii doo fa gañe nga wàññi ñun nag loolu la ñuy bañal suñu réew bépp réforme bu ñuy def pour ce pays la dafa war a nekk des réformes structurelles mais waru nekk des réformes politique parce que tant que on aura des réformes politiques lii rek lay mujj dañuy dem dix ans après on revient corriger cinq ans après on reviendra corriger looloo tax ñun ñu ne mm. tey d'accord ñu pour que ñu wàññi le nombre de députés sur la liste ah, proportionnelle parce que dafay garantir débat tey am na ko nga xamante ne mu ngi nekk dem na élection président présidentielle plus fort reste la demee pourtant bi mu demee troisième la jël ñun ñii ngay dégg ñëpp tey doo lim dix députés assemblée nationale doo lim dix députés dix meilleurs députés assemblée nationale te doo ci génnee waa plus fort reste yi comme yéen quoi. man man Aïssata plus fort reste la ñëwee et j'en suis fière parce que dafay wane ne le Sénégal c'est un pays démocratique y a la vitalité démocratique looloo tax ñun ñuy xeex un combat de principe. Mhm. waruñu ko conseil constitutionnel. saisir nañ ko comme nu mu waree maintenant mhm. nous on a foi en notre justice. Mhm. ñu ngi toog di leen déglu. mais Marième Sorel yaa ngi militer pour le respect de la loi comme ni nga ko combat de principe la mais. Euh, population bi moom lu muy gis mooy à quoi bon euh, augmenter euh, le nombre de députés surtout que c'est des champions de de l'absentéisme. Effectivement. Ça, c'est un problème. Oui, oui, oui. Je suis d'accord te aujourd'hui mu wax naa ko président Moustapha Niass biiral naa ko assemblée biiralaat naa ko nee naa leen tey ñun dañu war a toog ñu xalaat parce que ñu ne dañuy yokk nombre député yi askan bi ne ñoom d'accord ñu lan moo tax ñu ne d'accord ñu parce que pour ñoom les députés na les représentent pas. Mhm. wala ñi leen di représenter portion la dëgg moom dëgg la rek. moo waral man ñu ne président Moustapha Niasse nañu fexe ba assemblée nationale bii di ñëw ñu am une chaîne parlementaire pour que askan bi mun a gis le travail qu'on fait dans les commissions ñu mun a gis le travail qu'on fait hors même de or bureau benn ñaareel bi tey Assemblée nationale député on te demande de te prononcer surtout tout sans pour autant que tu ne sois que vous ne soyez expert de tout si lépp lañ lay laaj mbirum santé mbirum économie te yow sa bopp kese. liggéey bi yëpp yaa koy def. assemblée nationale 15 assistants parlementaires la am. quinze assistants parlementaires yi doyuñu sax député yi dañ leen jël yóbbu leen pour ñu jàppale commission yi. soo demee fu ñu naan service législatif nga xam ne dañ fay def transcription yi loi yi fa la ñuy defee. Hmm. Euh, fa lañ koy def ak yooyu service boobu noonu soo demee matuñu diis. léegi loo bëgg député bu ne am assistant. non pas député bu nekk am assistant mais aujourd'hui assemblée nationale war na budget bi nga xam ne tey assemblée budget 17 milliards la ñu am lañ leen nattal tey war nañu. xam le personnel de l'Assemblée nationale ñaata la. ñu xam ñaata la. ñaareel bi ñu am une chaîne parlementaire pour que mu mun a di fësal lan la député yi di def. ñetteel bi service législatif bi nga xam ñooy def transcription yi ñooy def journal des débats ñooy bind et cetera matuñu fukk donc je pense que ni c'est des choses au-delà de casquette député yi et cetera. fonctionnement assemblée nationale si boppam. moo war a dem vers la redevabilité moo war a dem vers la modernité. Ablaye laataa ñu jàll ci élection législative yeeg waajtaay bi. tendance yi dafa nekk ci peut-être tendance yu gën a progressiste dem ci proportionnel integral manifestement fii Sénégal proportionnel sax dañ koy wàññi faf. mooy li nga xam ni moom mooy fal nit ñi ci liste nationale bi te ci sa exposé da nga wax ni bi ñu ñëwee ci départemental yi dañoo ne duñ ko mën a wàññi. lan moo tax ngeen yaakaar ni député yi finalement est-ce que député gox amati na sens ci Sénégal parce que yow fal woo ci gox te bilan bi nga def mooy yaa ngi représenté askan wi ak fu mu mën di doon est-ce que député gox ñu koy fal ci département amati na sens. waaw député gox euh, am na sens parce que askan bi la fa yóbbu dafay identifier wu sa liggéey su fekkente ne loolu moo la fa yóbbu mais fii. lan ngay gis man député parti la lu ma diw indil loolu laay voté hmm. tey assemblée nationale député yi nga xamante ne xëy na ñoo doon taxaw di xaaju quatre-vingt pour cent yi du ñu ñëwaat parce que xëy na seen parti duñ leen wóolu dénkaat leen. Hmm. parce que fii ba ay nit ñooy tëju defar liste indi askan bi voté. donc je pense que ne aujourd'hui mécanisme yi nañu war a changer askan bi yeewu suñu bëggee am des députés qui sont redevables à la population man de bi may dugg assemblée dañ ma ne. Hmm. le mandat n'est pas impératif on est là pour représenter le peuple. loolu laay jéem di def te su sama mandat jeexee mhm. ñu ci tolluwee bu ñu tolloo ci débat euh, bu ñu defee la na kay honorable ce cas sax dañ ci taxaw parce que yaa ngi ne am na député yu bëri wóorul nañu delluwaat fa yow mii mm-hmm. tamit ba nga bokk ñu ngi naan est parti ba yaa ngi ca biir ba léegi maa ngi si biir kañ bien évidemment parce que lépp luy war si si si militant maa ngi koy def su ma waree cotiser maa ngi cotiser. est ñu ngi lay boole ci maintenant duñ ma convoqué réunion j'ai pas honte de le dire parce que à un moment donné d'accord woon ak sama sama njiit lu mu def wala sama njiit dem rejoindre président de la république man amuma si gàcce wax ko parce que samay kàddu démb dara du tax ma rétropédaler ko parce que man ay principe laa gëm loolu laa continuer di gëm te assemblée nationale bi ma demee su ma demoon assemblée nationale fekk sama leader nekk groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar damay dem groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar mais bi ma ñëwee assemblée nationale député non inscrit laa ko fekk moo waral ma dem dekk député non inscrit continuer di taxawal askan bi maintenant li may nekk suba yàlla moo ko xam parce que li ma war en tant que député man def naa ko. léegi noo war a taxawee. leneen li mooy li ma war mooy def naa ko. et y' une vie qu'au parlement. oui mais mais mais mu yam fii ñu ngi naan yaay Benjamin assemblée nationale noonu la nar a taxawee parce que gisoon nañ sax. waaw engagement bi nga xam ne moom nga moom nga wax boobu ba léegi te moom ngay def euh, bëgg nga mu wéy ci biir assemblée. waaw xam nga ñun démarré nañ ay chantiers yu bëri en tant que jeune député et tey ñun suñu mandat lan la woon mooy wane ne mën nga nekk ndaw. Mhm. ñëw ci instance de prise de décision. def liggéey bi nga xamante ne féete nañ la kaw tey soo jëlee deux sessions budgétaires yu ma fekkee yëpp cité nañ ma parmi les dix meilleurs députés pendant deux ans nekk naa député en même temps nekk volontaire te ba léegi maa ngi continuer di nekk volontaire fexe naa ba assemblée nationale ñu voté fa une loi sur le volontariat ñu ngi def une poli euh, des plaidoyers pour que Sénégal mu am politique nationale de la jeunesse foofu lañ toll. maintenant man dama bokk si ñi nga xam ne gëmuñu ne. il faut yow nga nekk fa rek pour mbiri yi changer. sooy ànd ak ci les nattes yi honorable mm. loolu l'avenir nous jugera. et le moment venu loolu honorable ñetti weer doo man falu waa déglu ma wax la man falu tiitalu ma mais le moment venu on avisera ne leen ñii la ñuy àndal. mais kañ mooy moment venu kañ mooy moment venu honorable kañ mooy moment venu ñetti weer dong moom moo des ci législative yi kañ mooy moment venu bi waaw dinañ ko wax le moment venu on le dira. Ah, jot na de ñetti weer dong moom moo ci def xam nga nee nañ euh, euh, wax dafa jot. Mm-hmm. dafa dañ ko wax te jotu mm-hmm. mu jooy bu jotee incha allahu rabbi. mais yaa ngi ni ñuy taxawee. Chérif yaa ngi daas fanaanal li may daas fanaanal. honorable daal bëggut a wax parce que <laughs> monitrice laa mouvement Fulaar laa bokk te luñ ma jàngal mooy avant pendant après. waaw union citoyenne bunt bi gis nañ ba ñuy dem ñoom it euh, comme Théodore Montey gis nga dàq nañ ko moom it ci parti ba mu nekkoon ba ma ngay ànd ak ay gaayam ngir jéem a dem ci élection législative yi yow mi sax yaa ngi woon bi ni lance mi bi. waaw ñu njort ne xëy na. xam nga Théodore sama collègue la. et c' est quelqu' un pour qui j'ai beaucoup de respect ndax kat biñ ko liñ ko dénk assemblée nationale mu ngi koy def ni mu waree mi ngi représenter peuple bi mu ngi contrôler te mu ngi suivre les politiques publiques sama nawle la. woo ma ne ma damay def sama activité ma jàpp ni war naa ko demal noonu la ma waa yeneen parti di woowee ma leen di demal man aw ma problème loolu parce que man kenn du ma sàkkal ne fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar maanaam mais les gens les de partout parce que tey xëy na Mariam Soda nekk na benn identité remarquable boo xamante ne boo ko defee sa liste ndaw yi dinañ la wóolu <laughs> merci beaucoup question waaw mooy euh, patient en danger gisoon nañ mm. ba ni manifester nga ànd ak ñoom ci affaire a euh, sa soxna bi jamono ji sax a Goudiaby mi ngi xew am na lu xew paside ci wàllu wér-gu-yaram ba léegi xaaral ma liiraat ko. Mm-hmm. am na mala patiente bu ne dafa am ay jafe-jafe ba moment bi ña ngay manifester. Mm. ci fa nga xamante kon moom mooy Passy waa habitant Passy dañuy manifester à l'instant santé un jeune 30 année kon moo décédé démb faute d'assistance médicale. waaw euh, toll nii li toll mooy euh, la parole est en train de se libérer parce que. patients yi ay usagers lañ te dañu am droit am santé bu ñoom parce que la santé est un droit consacré dans la constitution benn ñaareel bi man de wax naa ko nee naa leen c'est pas ce ne sont pas simplement les patients qui sont en danger hmm. c'est la santé qui est en danger tey bu ñu amee ku ñu war a caw mooy état du Sénégal état du Sénégal mi nga xamante ne moom la ñu dénk constitution bi moom moo am obligation protéger tous les citoyens moom mi nga xam ne dañ ko ne la santé et un droit mooy nekk di ko salfaañe hmm. nu mu ko salfaañewee tey boo jëlee mbirum budget 2017 ak léegi natal nañ assemblée nationale lu tolloog 811 milliards wala lu ko ëpp tey anamu boo demee fii nii à 5 minutes du palais hôpital Le Dantec nga dem ci service maternité ba foofu jigéen ñi pour ñu dem wasini dañuy yëg ay escalier léegi dañuy xaar ba doomu nit gaañu fa wala jigéen gaañu fa ñuy indi te depuis six mois man wax naa ko ministre ministre ministre de la ministre de la santé te depuis un an six mois ba léegi statico boobu la ñu toll soo waxee ñu ne la waaw euh, hôpital de Dantec dañ koy dañ koy rénover waat dañ koy defaraat dañ koy réhabiliter waat alors que septembre lañ la yóbbu fii septembre lan nga nar a def foofu ngay gis ay patient yuy dem di woote ji infirmier pour que ñu ñëw defal leen seen ay traitement c'est tout à fait normal que nit ñi di dénoncer maintenant médecins yi itam am nañ ay difficultés personnel de santé bi am nañ ay difficultés mm-hmm. sage-femme yi am nañ ay difficultés tey lan mooy le pro le le, le véritable challenge mm-hmm. mooy que ñu nangu def ay réformes mm-hmm. dans la gouvernance sanitaire su ñu defee réforme yooyu ñu déglu acteurs yépp syndicat personnel soignant médecin usager patient ak ñëpp ñu mu nekk waxtaanu dëgg mais bañ nekk waxtaanu maslaha comme nu ko Abdou grand Abdoulaye doon doon waxee mais que ñu xool l'aspect gouvernance ñu xool l'aspect management ñu xool l'aspect financement de la santé parce que la santé coûte cher. xool aussi les ressources humaines ak la gestion dernière question munoo munoo dëkk di convoquer tey ba Kolda amulee gynécologue jël naa sama courage à deux mais bind ko question écrite tey bi nga gisee éducation grève bi nekk grève bu dul jeex jël naa samay sama droit hmm. def question d'actualité mais Chérif am na loo xam ne sa éthique professionnel moo la koy may hmm. santé man dama jàpp ni tey réforme yi ñu war a dem comme éducation waratul nekk rek ay ministre politique ñoo fay nekk comme justice gis nga bi ñuy dem local ministère de la justice ñuy njort ne dafay bokk nit ñi dañ ko yuux ministère force armées ñu bokk foog ne dafay bokk ministre nit ñi dañ ko jooytu bokkuñu tey santé éducation mm. yooyu tamit dafa war a nekk des secteurs souverains yoo xamante ne warul mm. ànd ak politique parce que li ñu siy sonal yëpp mooy la politisation de ces secteurs et on paye on en paye. merci beaucoup merci merci honorable Marème Soda Ndiaye euh, députée assemblée nationale <laughs> Marème Soda gis nga. Chérif bàyyi ma a xam <laughs> man man jeune laa man. du ma ñi nga xamante ne day ñëw fii nga leen ministère souveraineté ñoom waa Osez l'avenir ñoom moom affaire étrangère. merci beaucoup merci honorable <laughs> député Marème Soda Ndiaye ci wuyu si bi euh, sant la gërëm la bu baax a baax di la ñaanal nga yendu ak jàmm merci. waaw bu mu ñàkk ñàkk ci euh, prochaine législature bi euh, erreur la erreur la voilà euh, dañuy jàll léegi rek Vieux Diouf ci une l'observateur ak record